Nadem, madame, madame, Nadem, Nadem, Nadem, Merci. que dañu sommes, Sénégal jàmm continuer de fi sax est que dañu que Sénégal démocratie continuer de fi pour am bu fi dañu ci carte électeur confisqué Euh, nguur bu fi nekk tamit ñoom ñoo nar a organiser yi kon ñoom tamit dañu nar a góorgóorlu ba ngeen xam ne ni lii di fichier électoral bi coow bañ ci am góorgóorlu tamit ba carte électorale bi tamit euh, ñëpp mën ci jot ndax élection yi mën a jaar ci yoon te senegal des lu mu mës doon mooy dëkku jàmm dëkku démocratie. foqati élection yi jaral na ko dee ñunu nañu jaral dee Macky Sall boomul réew mi. Yakarani, naa ni fi ñu wax bari ji matatu ko buñu ragal alkati parce que ay sénégalais lañu comme ñun du dal ci kaw peuple nous devons créer le rapport de force qui sera favorable à l'opposition aujourd'hui maa ngi nuyu ku nek ci sa saay-saay la nekkete yoo saay-saay la dama ne Macky nañu ñu ginaaram nañu ñu loolu moo fi am senegal njaay yëpp a ngi fi homme de valeur yëpp a ngi ñuy taxaw ñëpp ngi ñuy toog na fi Macky Sall jóge ah. teg nañu nattu yàlla teg nañu natt bu diis Bimoutege mu président bi Denkoko Sénégal nattu bi metti na ndax na Sénégal teg ko ci loxo président spécial boo xam ben spécialité la am président spécial ndax néew na ci bi président boo xam ne te scandale bu day ni innema fëllul président bu am spécialité muy ban bañ a wax dëgg bañ a wax dëgg bu ñemewoon day jàkkaarloo jigéen ñi jàkkaarloo góor ñi ñemewul yéen peuple du Sénégal y a un candidat, ay candidat y a validé une validation Nous compté ñun faale une invalidation Macky c'est le peuple qui a validé ses candidats c'est le peuple qui va rester debout devant Macky c'est le peuple qui va freiner la volonté de Macky Sall qu'il est en train d'exercer sur nous chers leaders chers candidats refusons de 2012 avons un processus démocratique bu tegu ci nous 2012 une opposition bu taxaw 2012 avons nañu universitaire, universitaires une presse qui totalement indépendante 2012 kenn amul lam que nous devons ci vérité des urnes waaye tey tey ji ñu ñëpp ñu ngi koy wax waaye dàpp naa ni suñuy jëf dese na ko wone ñoo ngi ne coup d'état électoral lañuy ñuy waaj te dëgg la que coup d'état électoral la jëm ndax ndax ba ñuy jàpp xalifa Sall ñëpp xamoon nañu pour tere ko mu bokk ci élection yi Nous am justice pour Nous ne nous ko nous mu def ñu def depuis lors Khalifa Sall mënul participer au jeu démocratique. Alassane Sall wax dit l'heure de la résistance a sonné l'heure du combat a sonné Nous loo mën dire dégg président Macky Sall li wax bobu ba ni def mais nous, tout temps ñu def mais am bi war pour nous je disais à quelqu'un au moins il faut nous reconnaître les ci Macky Sall nous mënul deug la xamul deug def wante am na courage logique politique ci li nga xam ni moom la jublu mu dem ci ba jeex tàkk courage boobu nag il faudrait que au niveau de l'opposition ñu opposé ko mooy ki njëkk trahir loolu génn dem ci biir réew mi dem campagne donc xam nga ku mel noonu wax fa dëgg yàlla discours yi dina bare wax ji dina bare mais bu gaz lacrymogène yi barewul li mu bëgg def moom lay def le février li mu wax moom lay jéem kon bëgg naa daal bu may dellu si fii na police bi génne gaz lacrymogène man dama ko nam di nuyu di leen ziyaara si tàkkusaanu ajuma bi nga xam ni saatul ijaaba la loo ñaan yalla daf kay def yalla daf kay nangu dama yaakaar ni Macky Sall xàmmewu lu nu bojj ak lu nu sokk té dama japp ni parrainage bi daf ko bojj waye man dama jaaxle parce que y'a sept ans fi laa taxaw si place de l'Obélisque Macky Sall était recalé il n'est passé qu'au second tour ñun ñëpp ñu taxaw fii daal di xeex maag yow waaw waaw ñu taxaw xeex xeex ñaan mu déy ma ni ma am na benn aaya buy wax ay macha macha macha yu bare doo ko fi ñaan ma ni ko seet danaa ko ñaan ma ni kulillahu malikal mulki tuuti mulka man tasha ba pare nag wax ni allahumma jaal makisal mimman tasha aaya bi dafa wax ni yàlla yaay jox nguur ku la neex ma ñaan yàlla ni ko si la neex ñu ngi ñaan si barke ajuma ji si takkusaanu ajuma ji maa ni en 2000 en 2012 qul allahumma malikal mulki تؤتي ملك من تشاء اللهم اجعل مكسل ممن تشاء ويتي ما وحني قضي الله ملك الملك تنزع الملك ممن تشاء اللهم اجعل مكسل ممن تشاء واو كريم مينيو كريم مينيو كريم مينيو كريم مينيو mani mani mani wax Wahatko, évidemment évidemment le Sénégal est à la croisée des chemins xam euh, responsable Bornunko, le Sénégal est à la croisée des chemins d'ici quelques jours D'ici quelques jours, malheureusement, le Sénégal va encore davantage être dans une situation difficile. Mani Macky Sall mi Sénégal yàq na Sénégal dugal na parrainage dugal na lu nek et yéen ñop wax ngeen ko waxat ko lenn rek motax mu mu président du Sénégal.

da a encore plus davantage mais mais dama ni il faut aussi nous xam la situation réelle Macky Sall bi xam ni moo dugal parrainage je bëgg a la démocratie Sénégal est-ce que Macky Sall bi nos nangu sax mu organiser ay élections ici ci Sénégal xam nga xam nga nous war a waxtan sunu biir bu baax a baax parce que Macky Sall bëggul démocratie Macky Sall bëggul élection Macky Sall te ba bëgg ñu njuuj njaaj bay jëlaat jëlaat réew ci jël élection loolu la xam ñu njuuj way waykat bi wax na ko sank say say la nit ñëpp xam ni say say la sama juroom ñaari xel mën lu woon jàpp ni 7 ans après si même pays le Sénégal Macky Sall dana boole dan ma boole man si ñu ñuy recalé